Mbacke ñi ngi gamu am ñu bari ño xamné dañu commencé di ngagne li nga xam moy lu melni ay naan ay mbirum tarixa la am sax ñu dem banan bi bidaa ak ah, lo mu wax ci lolu jangal ko ñi nga xamné ñoy talibé waaw nun batay ci njàngalem sëriñ bi rek ci lañu tollu mooy xam naa ne du biddaa ndax sëñ Tuubaa dane tasimuhu bi sunnati yaquudunaa lil jannati bi istiyaalil minnati li muxlisil muasami loolu la wax màggal naa ko ci sunna màggal gi ma ko màggal ci sunna daanu wamat jëmeenu àjjana te day dolli sunuy xéewal ba ca kanam yàlla mu sell ma mu la eh, eh, wala boog ci darajey yonent bi sallallahu alayhi wa moomu la kon gàmmu noonu dañuy jàpp ne sunna la waaw kon kuy wax ne tariixa baaxul kooku ku ñooñu rek ay wax ne gàmmu du sunna mhm. waaye kenn ku mën a doon rek am nga bu dee biddaa lañ ko jàppe ñoom te noonu du biddaa ci noonu ndax sun yaakaar nee na sun sunna la ne fa ma yuhassim mawlida nabiyuna babil huda fakka sayidin sayida badran bi xayri waxami mhm. loolu it wax na ko ne ku ko màgg mel na ni fekk nga badar te li may wax njuumte nekku ci denn fa man yuhaasib mawlida nabiyuna babul hida fala yuhaasibul xada fa tariman waasib ku màggal bis bi itam buntub jub boobu du am xisaab mukk di su ko xisaab moo tax mu ne fa tariman waasib or maalal te màggal kon ñetti yooyu rek dana doy ne gàmm du bidaa keneen koo xam ne nag mm, sa aaday réew safu la nga wuti beneen aada indi ko imposé nu ko bu dutoon lislaam it man Moustapha damay bañ man der bu ñuul la dëgg la der yu ñuul yëpp yu weex la woon mm-hmm. dañoo métissé wu ba ñuul rek waaye bari na ci yoo xam ne ñuulu ñu woon li weexoon ëpp waaye nag jikkoy der bu ñuul ci lañu judd loolu lañ gëm ba nekk ko kon ku nu indil loo xam ne yaa ngi ko jëlee ca naar ya indil nu problème mu gàmm te naar yi sophisme dañ ko doon saboté fii mais tey boo demee Arabie Saoudi ña ngay gàmm ñu dul gàmm rek ñooy taal réew mi daanaka kon gàmmu daal e, mooy e, weer wii nu ne nga xam ne e, ñu ngi ko dëgmal di fukki guddi ak ñaar di fukki fan ak benn ki yàlla yónni ci ñun ki goreel àdduna ki tax sunu baaraam yi di yëngatu ni ndax ku sa deret di daw rek ci daraje yonent bi la dawee kooku daal moo moo war a euh, bis bi mu juddoo woon moo dëgmal ndu gëm ko di ko màggal sëñ Tuubaa mësta dañ di ko màggal ba nekk njaareem di ko màggal euh, ànd ak sunu ay maam ak sunu ay baay di ko màggal ba tey jii bi ma njëkkee njaareem laa doon gàmmoo bi ma tabaxee jumaa fii la ma sëñ Saaliwu jox ndigal ma di ko gàmmoo tey boo demoon fii rek danga nga fekk benn nag nagu sëñ Touba. nag waa nga fee gisaguma ko nag. nagu xaadimu rasul laa wax de. waxuma la nagu kenn. boo demee ma nga fee wàcce nañ ko ne ma nagu sëñ Touba bi moo ñëw keroog biñ ma waxee loolu sax àll ma jox. démb nagu am bëkk démb. bëkk démb nagu sëñ Muntaxa ñëw. defe na ma nga fee benn laa ci gisagul kon kay noonu gàmm xam nga dama dama ci am ndigal ndax sëñ Touba nagam moo fi njëkk ndax mu euh, sëñ euh, euh, danoo nosu nos goo xam ne sëñ Touba lépp lu doon def rek dañ ko koy defal ay junni junni junni yoon man kenn laa ci koo xam ne nii danaa jot nagu sëñ Touba mm. waaye loolu nangoo ma ko jox ak nangu li nu mag ñi tegal sama digg ak sëñ Muntaxa nag nag bi dafa jiitu woon ba ba mu nekk sëñ Touba bi liste bi ñëwee mu gis ne nag bee moom sama njukkala ci sëñ Touba kon maa ngi ñaan képp ku agsi fi ma agsi ak ku fay waaj a agsi nga am kilifa te bàyyi xel sunu mag ñi ba man faa am dara loolu daal ci gàttal bu bu bu la bu bu caméra yi mën nañoo dem xool fee nagu sëñ Touba yi. Mm-hmm. yaa nag yi agseegun ñu ngi fi. Mm-hmm. kon li may jàngale rek mooy gàmmoo ngoo sunna la ci nun ah, faneen fu waay jële leneen ne biddaa la am na beneen biddaa bu mu bokk boo xam ne bu toon yonant bi moom du am bu bi du nite bu du bi du am xam-xam bu du toon yonant bi du wér bu toon yonant bi du am fu mu dëkk te ma ngay def loo xam ne nii kon biddaa la te yonant bi bàyyiwu ndax lii farata la mm. ndax da ko fee bàyyi mm. bàyyiwu ko fi woon waaye nag téewul darajaam mooy indi lu xel di war a xalaat rek teñ dencal nu day àjjana sax mm-hmm. waaw yonent bi lim nu dencal mm-hmm. dina ko indil nii ku ci gaaw a caalit sax da ngay jàpp ne àjjanaa ngi bëgg a ñëw mm-hmm. ndax duudu maa ngi lay seereel ci yàlla ne ku meuna dekkal dëkkal mag ñi fenn fi ah. xamoo mag ñi gis naa ñuy saboté yoon wi dañuy ay jabar lañ te jabar moom xam nga ne moom moom moo ko yéefar sorewuñ ah. ah mais fii nga ma fekk ak ñeneen ñu dul jeex ci yëg-yëg la ñuy dox loo yëg rek yàlla defal la ko ah. xam nga fu ñu ko jële ci barke Serigne Touba foofu nag nun bu nu accès foofu da ngay daal di xam ne lépp loo xam ne ni sëñ Touba doon na ko def. Hmm. magi réew mi doon ko def te magi réew mi ñëpp benn lañu. wuute rek la bu ndaw ndax bi ngay ñëw fii bu la neexoon nga dem ba Touba nga ñëw soog a ñëw fii. Hmm. bu la nekkoon nit nga jaaree Kaolack soog a ñëw fii. Hmm. jaar nga njaareem ñëw fii. loolu rek la waaye ñun ñëpp benn lañu kon li may diglewaat ñi nga xam ne xalaat nañ ne gàmmu bidaa la. ñu jàppaat ne du biddaa ci nun ñoom la ñu nekk mooy biddaa mhm. loolu de laa ci mën a tontu est-ce que euh, Mbàkke yaakaaroo ni attaque ñi attaqué tarixa yi mhm. su continuer mun a dem ba wàññi pas-pasu taalibe ah, loolu de moom man de man na maa waat ne mënta wàññi sama pas-pas mhm. man noo ma indile woon sëñ rek noonu la ma gënale noo ma ko indiloon rek noo defee ne dafa ñaaw ba nga ma ko moom ma gën loo ma ma indil Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo defee ne la ñaawee rek noonu la ma gënale ki ma bind nag waxaale wu ma ko ndax moom rek lay déglu te bu ko neexoon nii may def sama loxo sax du mën a nekk waaye nag ci dara ji yonent bi la waaye ki ma yar ba ma mën cee dund nag mooy sëriñ Touba hmm. moo tax sama pas-pas dara mënu ko wàññi te it ku ma jur ak ku may déglu sa pas-pas mënta wàññi ko wala ñu tàggoo taalib bu wàññi bu bu bu àdduna mën a tax nga wàññi sa pas-pas ci taalibe yépp laa wax nag rajo laay waxe wala télé bee bu dee xëy nga bañ a gont ñëw fi ma fekk fi may fekk fi nga may baax bu dee doom noonu bu dee mbokk noonu xana kay ku sa pass pass daarut la mëna diri lo xamne ne kenn la won ñu xex muy kenn nit di dem ba muy ñaar ak ñett bay fukk bañ na témer la bañ na jooni la bañ na ay million la muy ñew lolu de fuñ ko wañé rek na né ne lañ ñew na bëgg dem rek di ñay ku fi fekk ki doon tu ginnaw ginnaaw ginnaaw dimanche rek am na ku ñëw fii tuub fi hmm. hmm? daal ñuy jébbul nag dama ko xamul nu muy toll nag hmm. ñu ñëw rek ne ma damay jaayante yow sëñ Touba. te xamuñu man a kan loolu moom fu ñu fi waxee lu ñaaw rek man maa mën a seere ne ñu bari buur na ñëw fii te amuñ lu ñuy xemem ci man déedéet sëñ Touba rek a tax kon euh, wax yooyu ñuy wax xanaa kay duñ dugg ci baatin waaye ña koy wax dee leen déglu bu dund guddee danga gis ne rëccu nañu ko te bu fekkee rëccu woon benn ñu gis ko ci saayir wala ñu gis ko ci baatin waaye nag saayir si moom mën naa taalum réew moom ndax ku mel ne man <coughs> ku sëñ Touba safut wala bëggoo ko damay defe ne kooku ma noppi naa ci kooku damay defe ne noppi naa ci sama relation sama bëgg-bëggu àdduna sama lépp kooko relation ba dagg naa ko te euh, ku ŋàññi sama kilifa bu dee manal naa la dara ci àdduna jaar ko ci yoon dinaa ko def